sant yàlla moom mi ñu may ñu fekkee at jotaay bi di tutela tutela ni ñu koy defee àjjuma bu ne te fi si waxtu wi di dalal ñëpp di waxtaanee lépp ni ko kàddu gi ëmbee euh, tey euh, tutela ñu ngi si ànd ak euh, Nina Penda Nina di la nuyu la ziar. Prof maa ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ak di ziara téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp ak fépp fu ñu mënti nekk ci Sénégal ak ci àddina bi di leen gërëm ci ni ñu toog di xaar toujours seen émission tout est là nuyu waa Ndiaganiao nuyu waa Thiadiaye nuyu waa Sandiara euh, waa Sandiara maire bi Serigne Diop euh, sama wóolare di ko di ko nuyu di ko ziar moom tamit euh, waa Thiadiaye yëpp di leen nuyu ñoom tamit Euh, imam waa Saloum. ñoom ñëpp ñu ngi professeur ñu ngi lay euh, am mbégte dellusiwaat euh, di ndokkeel nit ñi si gàmm gi ñu jógee coono gàmm gi yëpp vraiment li ñu si doon séntu yëpp si yàlla sotti ci réew mi yaa rabbi waaw amin sunu naataangoo yi nga xam ni ñoom lañ doon àndal Khadija Euh, moom waa waa Wadabere yépp di leen euh, di leen nuyu leen ziar waa Caajaay Pa bi Fall di ko nuyu di ko ziar moom it euh, suñu wóllëre di ko ñaal suñu borom defal ko jàmm ak xewal tey jotaay bi tout est là dañ si ànd ak sa Bari Idrissa Bari moom doomu Guinée yi ne fii ci réew mi bëgg fee bokk ñoom tey dañoo am benn kuréel goo xam ni moom moo ko jiite Euh, Idrissa ñu ngi lay nuyu di la dalal di la ziar. bonsoir. Euh, ñu ngi ñu ngi si ànd tamit ak Mansour Ndaw Mansour Ndaw alaaj Mansour Ndaw moom moo jiitee ànd gësëm seen section bi ne fii ci hôpital principal bu Ndakaaru Mansour ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf Tunkara ñu ngi nuyu di la remercier encore une fois si invitation bi di nuyu di ñu bokkal plateau bi yëpp di nuyu aussi Sénégal yi ñuy déglu yëpp surtout la jeunesse de And Gueusseum Euh, Aliou Mara Aliou Mara moom euh, fii ci APIX moom moo yor lépp loo xam ni mooy zone économique spéciale yi nga xam ni euh, plan Sénégal émergent si la ñuy yëngu ngir suqali réew mi si wàllum entreprise ak entrepreneuriat ak liggéey Aliou ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi lay fay professeur di nuyu ñëpp ñi toog si plateau bi di rafetlu jotaay bi di la remercier. ci occasion bi ma may tey pour ma toog si sa plateau bi pour mën a wane liggéey bi euh, président Macky Sall di def fii Sénégal. président Macky Sall wala yaay def liggéey. mais ñun ñun liggéey bi ñuy def président Macky Sall moo ñu ko sant. waaw ah, mais yéen koy def moom la ñuy liggéeyal waaw mais moom la ñuy liggéeyal bu leen déresponsabiliser seen bopp quand même président ñëwul di sanc zone économique sociale di ko liggéey di ko superviser yéen la. non waaw mais mais moo ñu ko sant. Euh, loolu <laughs> dinañ ko dinañ si dugg léegi euh, Bari euh, la ñuy tàmbalee tey Idrissa moom communauté guinéenne bi fii ñi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo Guinée Sékou Touré moom moom lañ gën a xam ndax Guinée yi ñaar la Guinée Bissau Guinée Sékou Touré am na sax Guinée équatoriale waaye moom Idrissa Bari collectif u citoyen guinéen yooyu nga xam ne dañ ne pour l' intégration fii moom moo leen yite sax yow dégg nga wolof tuuti euh, li ngay wax si wolof nga koy wax wala ci euh, pël Fuuta. non français français. voilà si si français. Voilà. Ah. bon euh, Idrissa Barry est là donc c'est le président du mm-hmm. collectif. Euh, wow. euh, des citoyens guinéens pour l'intégration ici au Sénégal. Mm. et Idrissa ce collectif c'est depuis quand. Euh, en fait ce collectif est né il y a quelques jours. Okay. parce que c'est parti d'un constat commun. Mm. peut-être chacun voulait le faire mais les gens hésitaient. il a fallu que des jeunes Guinéens se lèvent et fassent des petites réunions pour se dire que ce qui se passe en Guinée est, atteint une certaine limite. Il faut faire quelque chose. On est à peu près 2 millions, 2 millions 5 au Sénégal et on est très proche. Et ce qui se passe en Guinée, les enfants ils vont pas à l'école, il y a des manifestations tous les jours, chaque mardi il y a quelqu'un qui meurt, il y a des confrontations entre les politiques, le pouvoir et l'opposition, les civils et les militaires. les gens ne vont pas travailler correctement et la ville est bloquée. Euh, mais euh, dis-nous, euh, tu, tu, tu, viens d'avancer un chiffre là, que les Guinéens seraient 2,5 millions ici au Sénégal. Sénégal. Est-ce qu'il y a un recensement qui... Euh, et le recensement euh, qui, qui, se trouve à l'ambassade varie entre 2 millions, 2 millions et quelques. Mais les gens disent que c'est plus. quand on regarde. C'est une estimation de l'ambassade. La, de, de, de l'ambassade, en fait. On parle toujours. Est-ce que ce sur... sont des gens qui sont inscrits euh... Oui, parce que vous savez, entre 2010 et 2015, il y a eu des recensements parce qu'il y avait le, les deux élections, les élections de 2010 et les élections de 2015. Le nombre de personnes qui viennent prendre les, les cartes euh, d'identité, les cartes consulaires, et par rapport au recensement que l'on fait, par rapport, parce qu'ils sont associés, c'est des quatre régions naturelles, mmh. chaque région est bien organisée, donc on essaye d'estimer comme ça. Alors, un, un, coucou à tous les Guinéens qui sont ici, Mamoudou Diallo, qui est ici chez nous, hein, qui, euh, mais aussi à mes parents. Alassane Diallo, c'est mon coiffeur, hein, c'est lui qui m'a coiffé comme ça, il est, guinéen. <laughs> Euh, Aminata Diallo, qui était venue ici. Euh, mais Aminata est de Kolda euh, la le. elle était députée ancienne. Euh, non il y a il y a Aminata Diallo euh, qui est. Euh, qui est députée. Euh, en fait, elle, elle est de Kolda. Du, elle du est de Kolda. Mais il y a aussi notre parente euh, Aminata Diallo de Octobre ah Rose, oui. okay, qui est aussi d'origine guinéenne avec tous mes enfants, les Adama Lama et Alpha. Vraiment, tu connais beaucoup de Guinéens. Hein. Ah oui, oui, ça, <laughs> <laughs> ce, sont mes, ce, sont mes, parents. Mais maintenant, ceux-là, c'est de vrais Sénégalais quand même, parce qu'ils sont là sont depuis Sénégalais. longtemps. Alors, coucou à eux tous. Alors, quelle est la, la problématique aujourd'hui qui se pose à votre niveau euh, La problématique que l'on s'est posée, elle est très simple. Nous nous sommes posé certaines questions. Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école Pourquoi toutes ces tueries Pourquoi cette injustice Pourquoi toutes ces manifestations tous les jours C'est vrai qu'il y a l'opposition, il y a le pouvoir, il y a la société civile, mais c'est vrai qu'il y a des Guinéens aussi qui ont juste envie de vaquer à leurs occupations. Et ces gens-là n'ont pas besoin de tout ça en fait. C'est trop. Les enfants, ils vont pas à l'école. C'est des gens qui meurent chaque mardi à une Et pourquoi Pourquoi les enfants ne euh, vont pas à l'école Le pourquoi, c'est un peu partout en Afrique. C'est la guerre du pouvoir et l'envie, parce que si réellement gouverner, c'est diriger des gens, et si on se bat pour ces gens, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'entendre, s'asseoir et discuter, si c'est pour le bien du peuple. À et partir du moment où aujourd'hui, gens... aujourd'hui en Guinée, la situation est instable. Et cette instabilité, cette instabilité-là est due essentiellement à quoi euh, L'instabilité politique d'un pays se détermine par beaucoup de facteurs. Quand, quand l'état de droit n'est pas respecté, quand la justice ne fait pas son travail, quand les gens estiment qu'ils sont bafoués dans leur dignité, quand les gens meurent et qu'il n'y ait pas de justice, forcément l'état de droit ne peut pas se respecter parce que chacun va vouloir se défendre. Tu parles comme un opposant là Non, je ne parle pas comme un opposant, je parle comme un jeune Guinéen qui vit à l'étranger depuis plusieurs années qui a envie de rentrer, mais qui n'a pas le courage de rentrer par peur non seulement de, de tout ce qui se passe, et autour, je, je, pars en vacances, je pars réaliser des activités, je voyage un peu partout en Afrique. Ce que je vois chez moi me fait peur. Parce que quand on veut parler du développement d'un pays, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'ethnie, on parle des compétences des uns et des autres, on parle de démocratie, d'égalité de chance en fonction de ce que les gens ont appris, on parle de, de, de respect de la liberté d'expression et on parle d'échange. Mais tout ça aujourd'hui est bafoué quand surtout les enfants ne vont pas à l'école. On sait ce que l'école représente pour une nation. Si l'État et, et, les enseignants n'arrivent pas, les syndicats de l'enseignement n'arrivent pas à trouver euh, une entente. Si l'opposition et le pouvoir se tirent tous les jours pour des élections communales, pour des élections municipales, pour des élections législatives, nous les jeunes qui sont de l'autre côté, et ce qu'on voit qui se passe au Sénégal et dans d'autres pays, on se dit, tout se règle ici, Tunkara. On voit comment vous recevez les hommes politiques sénégalais. Ça crie beaucoup, mais ça finit toujours par s'asseoir et mm. discuter mm. et on trouve des solutions et le pays se développe petit à petit. Nous, on ne demande pas beaucoup de choses, on demande juste qu'ils arrêtent, qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent, que les enfants repartent à l'école, que tout le monde ait la même chance, que la justice soit équitable pour tous que les gens puissent aller travailler, rentrer chez eux tranquillement sans être agressés, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils quittent, ils veulent aller au boulot, ils sont agressés, c'est les manifestations, c'est des enfants de 12 ans qui meurent, c'est des policiers qui sont tués par là. Au fur et à mesure, ça va déclencher une guerre civile. C'est pourquoi nous, étant jeunes ici, on s'est levé pour dire peut-être on n'a pas d'armes, mais on a une voix, on veut se faire entendre, on veut que tout le monde entier nous entende. on n'insulte pas, on n'insulte pas un chef d'État, on n'insulte pas un opposant, mais quand même on a le droit de dire qu'on veut voir nos frères partir à l'école, on a le droit de dire qu'on veut rentrer et que si on a des compétences, qu'on nous donne du boulot, on a le droit de dire qu'on veut l'égalité de dire Nina Penda Faye. Euh, c'est un discours euh, qu'on accepter et qui peut se comprendre. Mais comme on dit toujours, les conséquences d'une instabilité politique dans un pays, c'est ça. Ces enfants qui ne vont pas à l'école, des innocents qui meurent, parce que justement, il y a une instabilité. Mais au-delà de tout ça, moi, je, je, c'est vrai qu'il est bien de, de marcher. C'est bien qu'il faut que la, la diaspora guinéenne euh, soit à Dakar pour dire on voudrait que nos frères aillent à l'école, on aimerait que la, la, violence cesse, on aurait souhaité que opposition et pouvoir puissent fumer le calumet de la paix, et on aimerait également qu'il y ait des joutes électorales, quels que puissent être les rendez-vous, que ces rendez-vous d'élection se passent normalement, comme ça se passerait partout ailleurs dans le monde. Mais moi, je voudrais juste m'apesantir sur un mm. aspect, euh, professeur. C'est euh, au-delà de, de, du fait de revendiquer, de marcher pour dire il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête, qu'est-ce que la diaspora guinéenne qui vit au Sénégal ou qui vit ailleurs dans le monde fait pour qu'on puisse aller dans une situation de stabilité pour qu'on puisse aller dans une situation où opposition et pouvoir euh, euh peuvent s'asseoir autour d'une table et discuter, trouver une solution. Parce que ce qui me semble, d'après ce que j'entends dire, c'est qu'on est dans une impasse. Et comment on arrive à régler cette, cette situation euh, où on est dans l'impasse il y a des violences. Tous les mardis, Idrissa nous dit qu'il y a un jeune qui meurt. C'est pas possible. Mmh. C'est pas Alors, possible. Qu'est-ce que, que, que, la diaspora guinéenne oui. au Sénégal fait dans le sens de la... De, de, de... C est, c est, par exemple, c'est la première action. Euh, avant que nous, on ne fasse la manifestation, je pense que l'opposition guinéenne, le vendredi passé, avait fait une manifestation euh, à la même place de l'obélisque. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de faire cette marche d'abord pour alerter et puis s'asseoir et discuter avec les parties prenantes, parce qu'on n'a pas fait cette marche seule. On allait rencontrer toutes les couches sociales afin de leur proposer ce qu'on a envie de faire, c'est d'inciter les gens à se calmer parce qu'à la base, c'est l'ethnocentrisme qui gangrène. Mm. Peul, Maleké, Soussou, Thomas, Guerzé, dans un même pays qui ne s'entendent pas, chacun réclame euh, être le plus fier, être le plus digne, être le plus noble, sachant qu'on est dans le même pays. Mhm. Et je pense que tant que c'est comme ça, on ne peut pas aller. Nous, notre objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas d'armes. Notre âme, c'est notre voix. Et les voix et moyens qu'on a, d'abord, c'est de discuter avec nos compatriotes sur une plateforme de, de, de négociation et sur quel ton il faut partir pour que les gens se ressaisissent afin qu'ils sachent discuter. On veut rencontrer des autorités sénégalaises par rapport à leur expérience en matière de politique, de démocratie. On veut rencontrer <clears throat> les ONG qui parlent des droits de l'homme et tout. Discuter avec tout le monde pour qu'ils aillent parler à nos aînés parce que c'est vrai que nous, on ne va pas leur dire les anciens quitter le pouvoir, mais on les jeunes trouve de la place. Oui, mais euh, tout mais, ça, c'est bien beau, mais euh, la, la, question de Nina, c'est que faites-vous À part la marche, il y a... Y a... La, non, il y a quelque chose qui est prévu, c'est ce que je vous dis. Nous, on a fait la marche aujourd'hui, ce week-end, le lundi, Inch'Allah. La marche, il y avait combien de personnes La marche, on a, d'après les estimations que la police nous a dit, on a eu 2100 et quelques, ah parce oui, que qu'est-ce qui s'est passé Deux, on a... 2100 sur 2 euh, millions. Oui, je, ça euh, s'explique, ça s'explique, ça s'explique parce que nous avons reçu l'autorisation ce matin et l'itinéraire a été changé, mmh. l'heure a été changée, mais quand même on a tenu à faire la marche. Et c'est quelque chose qui a été prévu juste il y a une semaine qu'on a décidé d'organiser cette marche. Donc pour vous, euh, être ici à Dakar et marcher euh, peut avoir une influence sur la situation euh, Je pense que ça peut avoir une influence parce que si je me rappelle, il y a 10 jours, en Belgique, en France, mmh, déjà, ils ont, mmh, marché. ils ont marché. Ça ne nous fait pas plaisir, sérieusement, mmh. de marcher dans un pays étranger et de dire ce qui ne va pas dans notre pays. C'est vrai ça. que tout le monde a des problèmes, c'est pas beau. Mais quand ça ne va pas et on ne peut pas se taire, la première option d'abord, c'est de dénoncer comme je l'ai dit, on n'alarme pas nous, on essaie d'alerter, on essaie de sensibiliser nos jeunes frères qui sont à Conakry, à l'intérieur du pays, qui sortent pour jeter des cailloux et qui mmh. prennent des, des, des, des balles. Mmh. C'est d'essayer de calmer ces gens, mais tout ça, ça arrive parce qu'ils n'ont pas d'emploi en fait. Ils n'ont pas la chance peut-être comme nous de sortir, de voir comment ça évolue. Quel est le taux de chômage en Guinée euh, Le taux de chômage, aujourd'hui, je ne peux pas l'estimer parce que je ne suis pas là-bas, mais je sais qu'il est très élevé. C'est la population guinéenne la population guinéenne. Ouais. sont combien On est entre 12 millions et 13 millions 13 de et millions. Et la Guinée, on, on le rappelle, c'est euh, ce qu'on appelle un scandale géologique. Euh, hyper riche, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, euh, le tiers des réserves de réserves. Euh, dans le monde. de l'or, du diamant, du, fer, euh, toutes de minerais. Mais la Guinée encore patauge dans la pauvreté. waaw euh, professeur xam nga euh, kii li mu def euh, dafa naa ñoom dañuy woote wàllu mhm. dañu bëgg ñu xettali leen te it xeebuñu ñu ci ñun xam nga Guinée dafa nekk réew moo xam ne réew mu mu mu Afrique yëpp war a bàyyi xel mhm. xam nga africains yi daanaka seen réew yi ay ay ay néeg yu nekk ci benn kër la rek mhm. ñoom ñëpp ku nekk da nga war a jox sa moroom loxo ñu jàppalante surtout ci wàllu démocratie fexe ku nekk li nga tane sa moroom nga dimbale ko. mais léeg-léeg réew dina toll foo xam ne waa réew ma rek mënuñu régler seen problème. Mm-hmm. waaw léeg-léeg am na yenn yuuxu yoo xam ne mënoo ko def ci biir réew mi léegi dëkk yu mel ni Sénégal yu mel ni Europe foofu nga mën a yëngatu parce que liberté bi ngay am fii doo ko am foofu. Mm-hmm. Euh, loolu aussi ma ne loo nga nit ki euh, li mu gëm nañ ko bàyyi mu wane ko. Mm-hmm. bu nee d'accordul su d'accordul si benn affaire nañ ko may mu ne d'accordul moo xam manifestation lay def moo xam lu mu mën a def mais jàpp naa ne aussi ñun war nañ ci tirer leçon mm-hmm. tey bu ñu mayee ma ne may ay guinéen ñu ñëw ci réew mi fii di fi def manifestation ñu encadré leen lépp jàll ci yoon dëkk bi aussi bu ko waa réew mi bëggee ëllëg. nañ leen ko yombalal. waaw mais imam simple noonu parce que ñii c' est sûr que ñoom du am débordement du am sànni xeer dinañ régler mais ñun ñii. suñu régler dañuy déborder waaw chaque fois xam nga préfet. Ah saa yu teree marche wala yooyu. dañ ko naan parce que dañuy ragal da ragal wala mooy nekk. dañuy ragal. dañuy ragal non professeur est ce que mos nga gis manifestation bu ñu boo xam dañ ko autorisé. ñu encadré leen affaire bi d'aborder. mosul non léeg-léeg moom duy d'aborder. waaw nañ leen bàyyi ñu marche dañuy xam nga comme si constitution bi amee rek. mooy nit ñi bëgg a marche ñu tere leen ko. ñenn ñi commencé fi pour loolu la ci loolu mais ma marche yi jafewul. mais mais par exemple sitin sitin bi gaa ñi bëggoon def fii ay euh, buntu euh, euh, ministère de l'intérieur. non boobu dox xam nga yooyu moom mënul ne. lu tax mënul nekk. parce que xam nga sit-in imam mooy da nga ñëw toog toogu ñaxtu. Hmm. pour nga am pour nga toog il faut nga am barab boo xam ne fa nga war a toog. day buntu diggante euh, ministère de l' intérieur. ak euh, ministère de l' économie ak RTS ak cathédrale amul fu ñu toog. ak mais mais professeur manifestation yi ñu tere dafa bari. non man man euh, xam nga loolu ànduma si mais tooge toogu ñaxtu laa. bi bi ñu fi mujjee tere. bi amoon jeexi jaaxi ba ñu jàppoon ñoom. dëkkuraak ñooñu ñoom dañ leen waxoon mënuñu toog. Euh, buntu ministère de l'intérieur parce que foofu amul toogukaay. c'est-à-dire man li ma a wax arrêté Ousmane taxoon na mooy manifestation ku ko bëgg nañ la bàyyi nga def ko. ñu encadré loolu suñu constitution moo ko moo ko. waaw loolu rek laa bëgg wax. waaw mais mais préfet keroog euh, nañ si mu ne mais gaañ foofu amuñu fu ñu toog. non mais loolu du benn du benn c'est am na yeneen yu ko jiitu. Hmm. Euh, manifestation nañ leen bàyyi ñu def aussi guinéen yi. Ah. message bii ñuy jàllale. dañu woote africain yi ñu wollu leen. Hmm. ñu jàppale leen parce que réew doomu réew dinañ toll ci conflit foo xam ne il faut keneen mooy ñëw dugal ci loxoom jàppale leen. te Guinée naat na naat goo xam ne professeur. Hmm. rafet rafet goo xam ne la fa nekk ci koom-koom waruñu leen seetaan ñuy dugg ci yenn situation yi. Euh, loolu dëgg la Guinée moom saa yoo rek sa xol dafay jeex ndax. Euh, da ngay gis foofu euh, réew mi ni mu naatee mais nga gis ni vraiment suqale koogul euh, te loolu war nañ si bay waar mais imam pour dëggal li ngay wax nii euh, ñun Sénégal boo xoolee fu Afrique du Sud gis na nu mu sore mais ñun wàllum apartheid bi fii fii si Gorée bay nañ fa waar mhm. te Guinée gii sax man mii boole woon nañ ma si kuréel goo xam ne fii ci Gorée waa institut Dakar Gorée institut ñoom bi jiixi jaaxa yi amoon loolu def naa mille 2012 la woon defe naa euh, ñu woo mboolee mu Guinéen yëpp euh, acteurs yi ne leen ak lu mënti xew bu guerre am mm-hmm. ñun ñëpp ñëpp d'accord si loolu après nag ñu ne nañ dem te vraiment yàlla defoon na si tawfeex euh, Guinée bu ñu koy fàttali feebaru Ebola amoon na 2014 mm-hmm. la woon mm-hmm. ah, mu nekkoon lu xaw a doy waar ba seen président xawoon ñu mere ndax président Macky Sall dafa ne woon nañ tëj frontière bi ràpp Euh, loolu xawoon doy waar mais léegi defe naa a ñu mer parce que xam nga mm. dëkkandoo dañuy wax ni dëkkandoo jàmm ci mm. donc euh, bu Sénégal amee jàmm yeneen réew yi nekk ñoo nga xam ne ñoo ñu war nekk suñu des pays frères. mais mais Nina tu peux comprendre aussi que euh, le président Alpha Condé ne peut pas être satisfait qu'on ferme la frontière. mais je suis parfaitement d'accord loolu moo tax ma ne la xam nga dañu ne dëkkandoo jàmm ca il est préférable que mon voisin soit en paix qu'il soit en guerre. Parce que quand il est en guerre, moi, je suis embêtée. Oui, mais quand il a et donc, Ebola et que tu fermes ta frontière, il, a, il n'est pas satisfait. Il n'est pas content, waouh. Mais Ramge, la fermeture aussi, c'était pas une fermeture boo xamante ne les gens n'arrivaient pas à entrer il fallait contrôler il fallait au début mettre les dispositifs le dispositif nécessaire cordon, pour qu'on puisse absolument. avoir au moins l'assurance de ne pas aussi avoir. Euh, mais que Ebola la, ne vienne nous que, rendre visite. mais Ebola, de toutes les bon, façons on a on a eu un cas. Ouais, ouais, mais ouais, mais il faut reconnaître au Sénégal et accepter quand le voisin dit pour des raisons de sécurité, pour que je puisse également faire en sorte que mes citoyens ne soient pas atteints, de mettre le cordon qu'il faut. C'est non-assistance à payer en danger. C'est comme ça qu'il a vu pas. ça. Et après, laisser, et pourtant les gens entraient et sortaient. sortaient. Mm. Malgré le, le, le, le, cordon, il y a eu des, des, des Sénégalais qui y allaient parce que ce qu'on oublie, Ah, les frontières en Afrique, on sait qu'il y a des familles qui sont des deux, des deux parties du pays mmh. qui ne peuvent pas rester sans pour autant aller à Kolda oui, et d'autres oui, qui ne oui. peuvent pas euh, rester sans aller dans, un autre, dans une autre localité frontalière au Sénégal. Mais il, faut nous, il fallait accepter ce fait et faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'à un moment donné, le Sénégal avait besoin de prendre des décisions comme ça. On reste des pays frères. et tout ce qui touche la Guinée touche le Sénégal tey bu daree amee foofu je excusez-moi l'incursion en wolof bu fa daree amee les les Guinéens vont se retrouver au Sénégal vont se retrouver au Mali vont se retrouver en Gambie et nous sommes obligés de les recevoir. Absolument. Donc on a intérêt à ce qu'il se passe que, que les choses se passent bien ouais. et qu'ils soient en paix, que le pays soit stable. Euh, ça c'est une vérité vraie comme on dit <laughs> mais euh, une chose aussi est constante c'est que euh, cette euh, euh, ces instabilités-là hein, qui existent dans certains pays africains, euh, ce sont des boulets hein, qui, que l'on traîne parce qu'on ne peut pas aller de l'avant avec euh, ces situations-là. Il faut qu'on qu arrive à les dépasser et qu'on qu apporte les vraies solutions. Parce que les vraies solutions aujourd'hui, euh, c'est le vrai, les vrais défis, les vrais challenges. C'est vraiment euh, l'éradication de, de, de, la pauvreté et de ses terribles corollaires. Mm -hmm. hein, euh, corollaires que sont l'analphabétisme, la, la, faim, le, euh, le manque d'infrastructures. Et en Guinée, quand même, il n'y a pas encore tout cela. Donc, euh, aujourd'hui, toute l'énergie, toutes les énergies guinéennes devraient être euh, concentrées autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est c'est vraiment de sortir hein, de cette mauvaise passe-là qui est euh, le la pauvreté, c'est corollaire. En exemple, on, on, on, a suivi le match de l'équipe nationale la dernière fois mm -hmm. et tout le monde était d'accord, tout le monde était ensemble oui. pour suivre le match de l'équipe. On était, on était 13 millions d'âmes oui. Mhm. à suivre un match, à s'applaudir. On est des milliers de personnes dans les mosquées, à l'église ensemble, on prie sans problème. On, s'aime pendant quand l'équipe nationale joue. Nous, on leur demande pourquoi on ne partage pas ce amour tous les jours.

Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait quatre marrant. régions naturelles, que moi je sois Peul, toi tu sois Maléké. C'est très facile en fait. Parce que ce que les politiques disent, ce que, ce que les politiques disent et ce que les gens y vivent, le citoyen il a besoin de quoi C'est d'un cadre de vie. Si son père des familles il veut que ses enfants aillent à l'école, il, il, veut avoir une vie décente. C'est trop facile ça. Oui. C'est pas trop demandé en fait. Oui, oui, oui, faut, non, c'est évident. Mais euh, encore une fois, toi, tu es sur les principes. Hein. Tout le monde est d'accord sur les principes. Tu, vois, tu, tu, prêches des convaincus. Nous, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est dans la réalité concrète, dans l'exercice du pouvoir et dans l'implication que, ce, que cela euh, a dans la vie de tous les jours que, que, que ça pêche. Et ça, c'est pas uniquement euh, propre à la Guinée, mais c'est propre à à, à, tous les pays africains. C'est vrai que la Guinée, c'est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à, à ah, avoir son, son, euh, indépendance, son, indépendance, en 58. En 58 oui. hein, là, 28 septembre, ah oui. le président Sékou cher à la parce que les Français ont, ont tout euh, on voté pour la colonisation, nous les Sénégalais. Ah Vous, vous avez voté pour l'indépendance, nous, on voulait être colonisés. Et euh, ça vous a coûté très, très cher. Alors, le, le message final, c'est quoi Le message final, nous, d'abord, c'est de remercier tous les Guinéens qui se sont déplacés, l'autorité sénégalaise qui nous, a, qui nous a vraiment facilité et l'encadrement et l'autorisation qu'on a reçue. Et Dieu merci, chacun est rentré à la maison en paix. Nous, le message, il est très simple. On veut juste la paix chez nous. Mmh. Que les Guinéens qui sont à l'étranger, qui veulent aller investir, qu'on leur donne l'opportunité d'aller investir. Ceux qui sont là-bas, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent la paix et qu'il y a une façon que, que moi j'apprécie au Sénégal. Les hommes politiques, ils peuvent dire, tout dire sur les plateaux, dans les quartiers, ils peuvent parler. Mm -hmm. Mais le peuple sénégalais a toujours une force, c'est son bulletin. Mm -hmm. Il va sanctionner à la fin. Mm -hmm. Donc quand quelqu'un a un mandat de 5 ans ou de 7 ans, je ne sais ou quoi, laissez-lui faire son mandat. Si on est sûr qu'il ne fait pas le, le bien de la population, mais sanctionnons. Alors, euh, Message euh, très très fort. Euh, coucou à mon grand frère Ahmed Sekou Diallo, qui lui aujourd'hui est à, euh, au Mali. Euh, l'homonyme du président euh, Sékou on va faire une courte pause avant de revenir sur le plateau de Tout est là 1. Bon, dañuy def xaarandi bu ndaw balaa ñu dikkaat si Tout ak Aliou Mara ak El Hadj Mansour merci na ah. téléphone bi nit ñi di yëg di ci liggéey munul nekk xoola kii ma ba max léegi. on parle de civisme. Sénégalais yi dañu mal civilisé. bu ma tontulee yow. ma tontulee. Ah, jàngu ba pare asayir nit ñi sonal leen dañuy. maaleykum waaye foo xibaar gars yi tàmbali na waa Macky Sall yi gis nga dañuy récupéré carte d'identité yi di lay dugal barki yàlla naan grand théâtre tey 3000 francs ma xibaar xoolal grand théâtre tey 3000 francs kii mooy bind. man la maa ngi bindkat baa ngi nii maa ngi tudd Sambo Sow. bilaay sénégalais yi ñoo xiif si tiit. maa ngi tudd Sambo Sow responsable des cordonniers de la Médina. voilà au niveau de APR au niveau de APR ba pare ba ma wax la ba ma wax la. gëmal sa réew gëmoo li ngay def ba. ma ne gëmal sa réew gëmal sa réew. yéen ñi kaay wax la Macky Sall da lay nax Macky Sall dara da lay nax donc. yow xam na ne que ko am Ablaye Seck mooy def lancement de. man man Ablaye Seck ak a sekk ci yam laa leen wax 3000 lañ leen di jëndee ñu ngi nii 3000 damaa feebar sama ba yee metti mais li fa nga waxoo. 3000 francs xoolal xoolal. kon jëm 3000. yéen sénégalais ñoo war a gëm seen bopp gëm nañ seen bopp 3000 francs nga xam ne boo lekkee mu ñu leen di jënd gëm nañ seen bopp waaye war <laughs> nañ ko lijjanti parce que boo gisee ñuy ñuy dawalee nii. Aïssatou Diop Tall ñu ngi lay nuyu la ziar. <laughs> bon man je suis sidérée par ces images là vraiment parce que di dawal oto mel ni kuy zigzag nii. ça <laughs> fait peur mais bon bref maa ngi lay nuyu Tunkara di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di nuyu Nina ak oustaz di leen wax na mën naa leen torop torop torop vraiment. contente de de me retrouver aujourd'hui ici donc euh, ginnaaw ay jafe-jafe alhamdulilah ñëwaat na j'ai nag un message ci réseau sociaux yi ñu may laaj ndax dama bokk ci mercato bi ou <laughs> ma fenn maa ngi deux heures dama nekkoon rek ci ay affaire xam nga moom chaque jour lay nit di nekk en forme alhamdulilah ñëwaat naa si jàmm je suis là ak allah welcome euh, ñun Sénégal yu bëri euh, dañ dem ba foog ne si ñun la bokk daal. gis nga soxna soos ni mu koy waxee nekk ñun dañoo xaw a dégg nga saa nee na kooku jàngoo jongoo. macha allah yenn yi moom ñàkk xam moom moo koy waral. Euh, ni naa wolof yi dañuy wax benn wax bu am solo léeg-léeg xale day def ñu lu mu war a ñu ne daa xamadi. Mm-hmm. xamadi mooy. Mm-hmm. yow sa mm-hmm. wàcc yoon wii nga mm-hmm. wàcc yoon li ko waral mooy ñàkk xam parce que euh, li la siy dal maanaam mi ngi ñëw te bu ñëwee di nga am lu la lu la métti Aliou di la nuyu la ziar <laughs> Aliou Mara yow euh, jiite woon nga fii euh, fii patrimoine léegi nga jóge fa yaa ngi APIX li nga yëngu leeral ñu ko bu baax APIX waaw man li may yëngu euh, maa leen di nuyu d'abord. comme di comme ni ma ko waxee sànq rek ci la remercier ci occasion bi nga ma may tey pour ma ñëw waxtaan ci ak yéen. ci mm-hmm. li may yëngu mooy euh, les zones économiques spéciales fii au Sénégal. alors pour xam d'abord lan mooy zone économique spéciale il faut ñu wax d'abord un peu sur euh, maanaam li ñuy wax la politique c'est-à-dire le référentiel de politiques publiques au Sénégal. Mmh. alors référentiel politique publique fii au Sénégal mooy euh, le PSE ki est une vision du président Macky alors PSE nag mooy le plan Sénégal émergent euh, yéen ñëpp dégg ngeen ñuy wax ne PSE ñetti axe ñoo ko lal ah mais axe bi si gën a am solo euh, muy l'axe 1 bi nga xam te moom la ñu bëgg def une transformation structurelle de l'économie du Sénégal. Euh, alors bu ñuy wax transformation structurelle de l'économie ça veut dire euh, ce sera le, le moteur de la croissance te kuy wax euh, moteur de la croissance li ko mën a pousse moteur boobu boo xoolee ba xool levier bi gën a am solo mooy l'industrie c'est-à-dire industrialiser dëkk bi alors si màndum si fànn industrialisation boobu daf ci am benn changement de paradigme alors industrialisation boobu ñu bëgg def fii au Sénégal dañ si bëgg euh, fexe ba nga xam ne zone économique spéciale yi mooy nekk le moteur de l' industrialisation fii au Sénégal. la moteur de la croissance le moteur des compétitivités. ak Diamniadio rek voilà ñaata zone économique la. actuellement ñu ngi euh, développé ñetti zone économique spéciale fan alors bu njëkk bi bi nga xam te boo xoolee si création loi yi parce que zone économique décret présidentiel moo koy def. alors bi bi njëkk am décret bi décret njëkk a génn mooy zone économique spéciale bu Diass. Diass boo xam te moo jege aéroport bi. après Diass. après Diass nag euh, bi si topp mooy zone économique spéciale bu Diamniadio. mooy bi président doon euh, inauguré démb mooy le parc industriel. waaw ak alors bu bu si mujj pour le moment mooy zone économique spéciale de Sandiara. Sandiara léegi kon. Euh, bu Sandiara bi tàmbali na ndax. waaw bu sànjara bi tàmbali na. bu jas bi tamit tàmbali na. bu jas bi tàmbali na. léegi bu sànjara bi fu mu toll nii euh, ñaata këru liggéeykaay ñoo fa ñoo fa ne. bon actuellement bu sànjara bi y' a 500 emplois pour le moment ki sont créés. ñaata entreprise ñoo fa ne. bon pour le moment y' a 4 entreprises. 4 bu jas bi ñaata entreprise ñoo fa ne. bon bu jas bi pour le moment benn euh, entreprise moo fa nekkum. benn bu jam ñaajo bi ñaata entreprise. bu jam ñaajo y' set sept entreprises. sept donc mhm. zone économique spéciale yooyu fi mu toll nii. Mhm. amagul nañ sept plus un muy huit plus quatre muy douze. waaw douze euh, zone euh, douze entreprises nii naa penda. Mhm. li may laajte monsieur Mara professeur Tunkara c'est vrai que. bi ñu waxee zone économique spéciale c'est c'est à louer c'est une bonne initiative mmh. au-delà du fait que c'est une bonne initiative xam nga nee na Sandiara c'est cinq cents emplois mmh. la ñu créé quatre entreprise ñoo nekk Sandiara mmh. mais lii sama laaj ak sama préoccupation mooy lii professeur est-ce que zone économique yi ñu créer douze yi ñu créer en attendant ñu xam ndax da leneen dana am ndax dana mën a au moins résorber moitié wu gàpp li ñu war a lijjanti ci mbirum xëy ak liggéey ci réew mi surtout pour les jeunes. Mm-hmm. ñaata maanaam ñaata li laaj bi mooy euh, j'aimerais bien que ñu mu ñu wax ma par exemple. on peut comprendre Diass parce que aéroport bi la mais au la de l'aéroport lan la ñu war a mën a def loo xamante ne dina mën a permettre mu am ay emploi mais population yi nga xam ne ñoo dëkk ci localité boobu mhm. est-ce que entreprise yi ñëw dafa am liñ charte bi ñu leen tegal boo xamante ne dana leen obligé forcément ñu jël ñi dëkk ci localité bi loolu bëgg naa xam ndax am na lu ñu ciy liggéey walla déet beneen laaj bi ma ko bëggee laaj mooy ñetteel laaj bi fa laa jeexalee professeur moo di jas nee na benn entreprise la mais ñun dañu dafa am cas bu ñu soulever xam naa dinañ ci ñëwaat ci yeneen émission yi ñëw pourquoi ñu ñu ñu privilégier yeneen entreprise yi faciliter leen pour ñoom ñu mën a implanter wu te sénégalais yi nga xamante ne ay sénégalais yu nekkoon dans la diaspora ñëw pour investir ci ci ci ci jas bi ci jas am nañu suñu sœur sœur boo xamante ne sénégalaise la connue dans la diaspora liggéey France lu bëri ci li nga xamante ne moom mooy mbiru mbiru restauration elle de des problèmes pour s'installer à Diass parce que nee na conditions yi ñu leen di laaj. métti na métti boo xamante ne bu ñu sañoon dañuy toog France continuer liggéey li ñuy liggéey lan nañu monsieur Mara mën a apporter comme réponse si loolu parce que comme comme Fatou nekku fii mën nañu laaj loolu ba xam ndax ci sais dans le même sens arrêtez voilà man c'est juste damay rebondir ci kii question Nina Penda yi parce que dañu waxoon dañuy créer cinq cent mille emplois bu ma juumul monsieur Mara n'est-ce pas mm-hmm. voilà tey jii 500000 emplois yooyu est-ce que mën nañ koo génnee ci 12 entreprises yi nga xamante ne mu taxawal nañ ko ci zone yi nga cité léegi nii te démb aussi maa ngi seetaan journal 20h bu télévision nationale jiitu réew mi nekk euh, pôle urbain bu jam ñaajo mm-hmm. ci ay euh, kii société aussi textile je pense bien. Mm-hmm. mu nekk foofu noonu foofu tamit dañu gis ne nombre bi ëpp jigéen ñi la mm-hmm. axe boobu noonu ñu ñëwaat ci PS exactement jigéen ñi tey jii ban ban kii la ñu am pourcentage tey lañu ñu am la représenté ci biir PS bi. aywa waaw professeur man de wax yàlla bu may jaar boor yooyu noonu damay. yaakaar ne daal lii bu sottee dina baax ci réew mi dina rafet mm-hmm. parce que foo tourné yaa ngi gis euh, chantier yi te loolu it vraiment euh, dëkk moom dafa war a jëm ci kanam dëkk yëpp war a rafet mais li ñu li ñu sumb foofu ci liggéey bu yeggee dina rafet. Mhm. dina baax aussi mais man li may laajte mooy loolu ñun lan la ñuy coûter après. waaw est-ce que du nekk ay bor yoo xamante ni day métti ci réew mi comme ni ñu ko déggee ci autoroute péage bi dégg nga vraiment dëgg la baax na tuuti mais lëndëm gaa nga fa léeg-léeg nit ñaa ngi fay dee te ñu nar a fay ay bor yu dul jeex. Ah, est-ce que chantier yooyu noonu tamit lan lay lan la ñuy coûter ëllëg. ah laaj bu am solo léegi. Euh, Alimara dañuy tàmbalee si Nina li mu wax euh, zone économique spéciale yooyu yëpp si euh, mbébét yi. Mhm. yéene yi ñaata liggéey dañ fas yéene jur. waaw boo gisee sax ñu wax euh, zone économique spéciale liñ ñu fa namm a def mooy d'abord fexe ba xamte te dañuy attirer des investissements directs privés muy ay investissements directs privés étrangers. wala ay investissement direct privé euh, locaux alors liñ si euh, bëgg mooy euh, secteur privé bi jël mbir mi en charge foofu damay tontu un peu imam du ay balaa imam ñaata est-ce que jox chiffre. waaw foofu laa ñëw waaw foofu laa ñëw foofu laa ñëw alors euh, pour tontu foofu ni na li ñuy indi en matière d'emploi daf ci am solo. ñaata voilà donc euh, parce que li ñu li tax entreprise mën fa dugg zone économique spéciale dafa am ay critères. mais Alimara. waaw mun nga ñu baal rek tontu d' abord Nina. waaw non dinaa ko dinaa ko tontu Nina dinaa ko tontu. parce que Nina li mu wax dafa am solo mooy le le critère d' emploi. mais critère d' emploi d' abord estimation chiffre waaw. chiffre par exemple boo jëlee par exemple tey le parc industriel de Diamniadio. oui lu ñuy xaar en en matière d' emploi c' est 23000 emplois. léegi jam ñaajo vingt trois mille. waaw quinze mille emplois euh, direct et huit mille emplois indirects. léegi vingt jam ñaajo vingt Sandiara ñaata ñaata emplois. alors Sandiara ñu ngi xaar vingt mille emplois. vingt mille euh, kii nag Diass. bon jas pour les estimations Diass ça peut aller à peu près quelque chose comme 150 000 emplois. 150 si si tout bon léegi fu mu toll nii Sandiara moom depuis kañ la la la tàmbali. alors Sandiara démarré na depuis euh, mën naa wax 2016. Euh, 2016. waaw ba 2018 muy ñaari at ñu cinq 500 emplois. muy léegi euh, Diass depuis kañ la. alors jas mi ngi démarré pratiquement daaw. Hmm. daaw 2017. waaw ñu créé jas fu mu toll nii ñaata emploi. une bon Euh, je peux dire nombre d'emplois bi fa nekk c'est à peu près bariwul tellement. ñaata parce que juste y a que cinquante emplois. pour parler vrai. ok en un an cinquante emplois. léegi jam ñaajo. ñaata alors jam ñaajo pour le aujourd'hui il y mille cinquante trois mille cinquante trois emplois. donc yéen euh, bëgg ngeen créer vingt mille plus vingt trois. 23000 muy 43000 193000 emplois plus 150000 muy 193000 emplois mais fi mu toll nii créé gum ngeen 50. Euh, ak euh, euh, Dias. 500 mille mille mille cinquante trois muy. Euh, et Sandiara 500. San Sandiara 500 nga wax. waaw. non San Sandiara 50 la wax. Mm. non Sandiara 500 ak 1053 muy plus 50 plus 50 1100 1603 1603 donc fu mu toll nii créé gum ngeen 1603 emplois sur cent. cinq cent mille ñu cinq cent mille. ils avaient dit qu'il allait créer. cent non non cent par cent quatre-vingt-treize mille. fu mu toll nii à zéro virgule euh, zéro virgule zéro pour cent. non c'est que boo ko boo ko jëlee noonu da ngay réer <laughs> parce que dañoo nekk. mais il faut ñu calculer. par exemple xoolal non non waaw il faut ñu calculer. dama lay dama lay jox par exemple yaa ngi nekk gum. xoolal 0,8 dama lay dama lay xoolal affaire bi commencé na depuis 2016. Ah, mooy bu sànjara bi moo moo moo tàmbali. léegi de 2016 euh, ba 2018 xam nga ñaari at la. Uh-huh. ngeen defagum zéro virgule huit pour cent. moo tax ma ne la boo ko boo ko jëlee noonu da ngay réer xam nga xam nga entreprise boo koy teg. Mhm. da nga koy tabax. Mhm. ba pare da ngay aménager. amee ah, tabax entreprise bi ko tamit dugal machine yi. mais yooyu yëpp nag date foofu lañ koy démarré. Mhm. boo déggee ma ne la 2016 foofu lañ koy démarré di ko tabax léegi nag bu ñu ko tabaxee nag. commencé jël nit ñi recruter leen. te nit ñi dañ leen war a former. par exemple dama lay jox benn exemple. boo jëlee par exemple démb parc industriel bi ñuy euh, inauguré démb. l'entreprise de confection fi ñu wane xale jigéen ñi di liggéey. Mhm. foofu rek démb 340 xale yu jigéen ñu ngi fay liggéey mais à terme ce qui est prévu c'est 2500 emplois. ok mais alors on recrute par groupe de 300. Mhm. on di leen former sur un espace de deux mois. foofu entreprise bu ñu leen former mois dugal trois mois. dugal trois cent yi yeneen trois cent ñëwaat. ay chinois ñoom ñoom moom entreprise yooyu. waaw ay ay chinois ñoo ko moom léegi euh, kii dafa laaj. Euh, Nina Penda ba léegi nee na est-ce que si barab yi euh, entre zone économique spéciale yooyu nekk est-ce que dafa am ay charte yoo xam ne da ngeen koy sartoo ne waa barab boobu nangami liggéeykat dañ koy jël si gox bi. recrutement la waaw parce que dañuy privilégié ñi dëkk euh, si environ gox bi. par exemple pour Sandiara pour être concret. Sandiara par exemple tey boo jëlee Sandiara Sandiara ñi fa nekk aujourd'hui yëpp di fa liggéey Sandiara lañ dëkk. léegi est-ce que loolu moom mooy euh, objectif bi ñi fay liggéey yëpp jël non non pas du tout léegi est-ce que am na ay ay pourcentage par exemple Sandiara da ni vingt mille emplois ngeen fi bëgg créer léegi si euh, projection yi vingt mille emplois yooyu ban pourcentage moo war a nekk doomu Sandiara est-ce que non mënuñu mënuñu la wax ne que pourcentage bi mooy nekk doomu Sandiara bon parce que loolu loolu defu leen parce que loolu Sénégal yëpp ñoo ko moom très bien léegi doomu Sénégal dañu gis ni que par exemple entreprise chinoise yi ñoom tàmbali nañ ñoom ñi ngi liggéey ak yooyu pour nga ñëw dugg ci zone économique spéciale yi dafa mel ni ñiy jóge bitim réew ñoom la ñu gën a faral ñoom la ñu gën a yombal ni naa mi ngi wax soxna soosu jóge tugal nee na ñoom pour ñu ñëw euh, sanc foofu lu lu metti la loolu loo ci wax waaw moo tax ma ne sànq li ma lay wax sànq dafa am solo ma ne zone économique spéciale du da ngay nekk entreprise rek ñëw dugg fa dafa am ay critères parce que zone économique spéciale d'abord li ñu fay recherché mooy ay entreprise yi nga xam te premier critère li tax nga dugg fa mooy dañ lay laaj boo booy produire biens yi ngay produire comme par exemple boo jëlee jam ñaajoo cinquante pour cent biens yi ngay produire yëpp da nga ko war a exporter. da nga koy a jaay bitim réew bitim réew parce que li ñu si namm mooy jéem a équilibrer balance commerciale. Hmm. parce que balance commerciale Sénégal dafa déficitaire te balance commerciale dëkk boo koy bëgg a équilibrer soit dangay ngay exporter. Hmm. wala ngay def li ñuy wax de l' import substitution. maanaam li nga daan jéggaani di ko jënd bitim réew yow sa bopp léegi ngay commencé di ko defar moo tax entreprise yi fa nekk dañuy dañ leen di laaj pour nga mën fa nekk pour nga mën a dugg premier critère bi mooy ngay au moins cinquante pour cent de ton chiffre d'affaires loolu la bëgg def moom voilà attends deuxième critère parce que critère yamul foofu mhm. deuxième critère mooy nekk il faut nga investir minimum cinq cent millions de francs fa moom pare na pour loolu entreprise bi man soxna soos muy wax man xaw ma ko ok troisième critère bi mooy ne il faut nga créer emploi comme par exemple Diamniadio dañ lay demande ne la il faut nga créer au moins cinq emplois par cent mètres carrés de bâtiment industriel occupé. Mhm. donc ñetti critères yooyu boo ko remplir lañ lay mën a accepter pour nga nekk ci biir. mais parce que boo ko nekkee loolu mooy Aliou Mara. doon lay permettre aussi nga am certains avantages. mais loolu mooy tey euh, ñun da ngeen ñu dàq ñun waa réew mi parce que boo nee. ku amul 500 millions du ñëw. Mm. dàq nga sénégalais. non dàquñu sénégalais parce que sénégalais ñoo fa ëpp. xam nga loolu la gars yi foog ne gars yi ñoo foog ne que étranger ñoo fa alors que Séné alors que sénégalais ñu fa ëpp. bon fu mu toll nii euh, créé gum nañ foofu 12 euh, entreprises. loolu loolu ngeen. non non sept sept à Diamniadio. Diamniadio waaw ñaata entreprise sénégalaise. léegi dama wax si sept sept sept entreprises yooyu. Diamniadio sept trois ñoo si uh-huh. ñaari entreprise euh, chinoise ak benn entreprise tunisienne tous les quatre. c'est des Sénégalais. ñan la. par exemple boo jëlee euh, Sewacard. Sewacard waaw. mooy entreprise bi nga xam te léegi dañuy commencé fii au Sénégal. Mhm. di defar carte bancaire. ak carte d'identité numérisée. Mhm. mooy la carte d'identité numérisée. ay Sénégalais lañ ay Sénégalais am yooyu. ñooñu ay Sénégalais lañ dañ ko daan ay sénégalais c'est un consortium de sénégalais un sénégalais un ivoirien mhm. ñoom ñoo teg société bi am ay partenaires stratégiques français ah, dégg nga loolu ah si ah si parce que carte biométrique Sénégal mënu ko defar. dégg nga loolu Sénégal mënu defar carte. donc am na ne ci gannaaw yoo ah, xam ne ñoo yor xaalis bi c'est nécessaire c'est nécessaire. Hmm. Tounkara gis nga tey boo bëggoon defar carte boo bëggoon defar télévision tey. Hmm. télévision bi bi ngay xool di boo ko bëggoon seetaan Sénégal mënu ko defar technologie bi ça se trouve ailleurs dëkk yi développé yëpp boo jëlee Chine li tax mu développé dëkk yi développé yëpp c'est parce que dañuy xëcc ñi am xam-xam bi. nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom ba mën a lu ñuy wax transfert de technologie ba ëllëg yow nga mun ko def oui mais mais loolu dafay dafay fekk non attention loolu dafay fekk nag mu nekk une politique globale. boo xam ne réew mi moom moo tey ñun par exemple. suñu budget ñun suñu budget euh, suñu budget pour industrie. Uh-huh. ñaata la. budget pour industrie. waaw ministère de l'industrie lan mooy budget non budget pour ministère de l'industrie bon je l'ai pas en tête. budget boobu xoolal. je l'ai pas en tête mais c'est pas le budget du ministère de l'industrie non c'est pas le budget de l'industrie politique industrielle. pas du tout ça c'est ça pour mener la politique. mais ñi industrie c'est pas le ministère. mais loolu loolu a dugg dans le cadre global. d'une politique pas du tout là vous vous boo déggee seen président nan toujours le secteur privé doit prendre en charge. le développement au lieu que ça soit maintenant le secteur public que l'État s'endette defar affaire yi il faut que le secteur privé prenne en chose prenne en main le euh, développement du pays et ça c'est important moo aujourd'hui dans ces zones économiques spéciales ce qu'on recherche c'est des investissements directs étrangers ou bien des investissements privés alors ñooñu il faut ñu am nuñ leen di attirer i faut ñu nekk ñun euh, il faut qu'on ait euh, des incitations. ah président de nee ñi ñëw Afrique di investir il faut tout leur donner. ah oui on est en train non pas tout. ah président loolu euh, wax. Kara mën nga ñu tagal. partout vidéo investir Afrique fii il faut tout leur donner. non c'est-à-dire président dégg nga président. non dégg nga président dégg naa président waaw yow Aliou non président mooy nekk nañ leen yombal lépp. Mm-hmm. par exemple boo xoolee dans les zones économiques spéciales. président français la laaj dafa il faut tout leur donner. président li mu wax euh, euh, président li mu wax dégg nañu ko baax professeur li mu wax dégg nañu ko baax alors. Ah, président président wax. Ah, par exemple dama lay jox exemple. par exemple dans sa exemple boobu euh, bàyyi bàyyi bàyyi ñu ko ne. non non non loolu dafa am solo. exemple non li si ñëw. non dafa solo parce que sinon da ngay comprendre. Hmm. parce que dans ces zones boo gisee ñuy xëcc ñooñu pare dóor leen ay critères ne la war nga investir 500 millions de francs fa war nga au moins 50 pour cent de ta production nga koy exporter war nga créer au moins 5 emplois par 100 mètres carrés de bâtiment industriel loolu boo gisee ñu teg ko boo ko remplir dafa am ay avantages yu ngay jox par exemple yow tey booy teg sa entreprise lépp looy jënd comme matériel di ko jëlee bitim réew machines yi ak yëpp. doo fay douane doo fay taxe. exonéré de taxe. <clears throat> pendant la phase d' exploitation booy exploité xam ne matière première bi amul Sénégal doo nga xam da ngay obligé jëli ko bitim réew doo fay douane doo fay taxe. loolu mooy avant avantage yi ñuy defal capitaliste yi loolu ngay wax. non te te ay doomu Sénégal ñu ngi fa. ay doomu Sénégal yoo xam ne qui ne ay tubaab ñoo leen ngemb de. non am na ñoo xam ne tubaab ngemb zone euh, entreprise la tubaab ngembul bu fa nekk. dama lay jox benn exemple. boo jëlee quelqu'un comme Sartori Sen. boo xam ne day def confection comme les chinois. Mm. moom néew ma pour cent lay euh, lay. Euh, lay exporté 95 pour cent de sa production te du exporté. Sénégal Sénégal la boo xam ne il était en Italie. Mm. di liggéey dans une entreprise comme ça. Mm-hmm. jàng ba gis affaire ni muy demee mu ñëw Sénégal établir fi machine yi gars yi yor mu jënd ko indi ko mmh. fii di utiliser ay doomu Sénégal aujourd'hui il utilise quatre cent Sénégalais léegi moom mooy Sénégalais ak ah, nee nga troisième entreprise bi euh, bi bi sénégalaise am na beneen Sénégalais bu nekk boo xam te moom ay montage de panneau solaire mmh. euh, lañ fay def mmh. ak ay montage de bicyclette ak tricycle solaire Sénégal pour la première fois ñu fiy def ay vélo solaire aywa ah, léegi pas ay vélo solaire mais léegi kii dafa laaj Aïssatou Diop Tall dafa laaj nee na euh, bon déggoon nañ fi 500000 emplois. Mhm. léegi yéen mille emplois yooyu est-ce que euh, ak 12 entreprises yi ñu créer est-ce que si ngeen ko bëgg. Euh? non. loolu c' est c' est juste une petite partie voilà c' est le début du commencement par exemple boo xoolee nombre d' entreprises yi war a ñëw fële Diamniadio mhm. dina ñuy wax ni mhm. ñu ngi xaar quelque chose parce que on a prévu de mettre là-bas quelque chose comme vingt cinq hangars na nekk comme vingt cinq entreprises bu dee c'est de grandes entreprises mhm. comme mën na nekk aussi euh, plus de cinquante entreprises. parce que di nga gis ay entreprises yoo xam te projection yi lan la au bout de par exemple fii léegi deux mille projection yi ñu euh, prévoir du question nombre d' entreprises projection yi c' est le nombre d' hmm. emplois. ñaata emploi fii léegi deux ce qu'on veut. non mënuñu la wax jusqu'à 2019 parce que aujourd'hui amul ah, benn ah, planification non, il y a une planification ah, il y a une planification ci xaalisu Sénégal Sénégal 25 milliards mhm. l'année prochaine il y a 60 milliards yu war a dugg pour que parc bi parc bi 53 hectares la mhm. on a aménagé que 13 war nañu investir war nañu aménage yeneen 40 hectares. léegi loolu pour ñaata emploi léegi yooyu yëpp voilà yooyu yëpp nag bu ñu ko bu ñu ko defee nag. 23000 dañuy am 23000 emplois. donc 15000 emplois direct. et mille emplois. loolu à l'horizon lan. alors kooku à partir de 2019 incha allah usines yooyu yëpp. dinañ commencé donc fii la demande est là ñi fa bëgg ñëw. Ah. ñi hmm. dépasse même la capacité des 53 hectares. donc fii léegi 2019 23000 emplois nañ ko créé. jàmm ah, professeur kon ñoom seen yi ñu bëgg a kon kañ lañ koy xaar ñu créé ko. mais aujourd'hui 500000 emplois yi. je ne sais pas ndax déglu nga euh, le premier ministre la semaine dernière. Mm-hmm, mm-hmm. ñeen dépassé nañ ko 500000 emplois yi non 500000 emplois yi bu ñu xoolee benn xay ba boo xam ne ce qui est enregistré. à l'inspection du travail xam te c'est formalisé on est à plus de 400 000 emplois. mais 500 000 yi motul ñooñu noonu création d'emploi boobu de 400 000 xam nga parfois di créer benn liggéey. Mhm. di créer benn liggéey boo xam ne liggéey boobu. day créer yeneen liggéey. mais de manière indirecte. mais yenn secteur par exemple la ñuy wax euh, ni que employés dañ leen créer premier ministre mi wax. mais dans y' a dans plusieurs secteurs. Hmm. mais bien sûr plusieurs secteurs mais yéen par exemple ban secteur nga ñu mën a wax ni par exemple foofu euh, am na euh, nangami emploi ñu fa créé. Mhm. aujourd'hui si tu prends l'industrie i y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Ah, si tu prends, l'industrie c'est vague. non écoute l'industrie euh, c'est vague. par exemple je te donne là moi où, je travaille. dans le domaine des zones économiques spéciales. rien que à Diamniadio, il a 1053 emplois. Oui, 1000 rien que... sur non, non, je te donne. Mais oui. ça, c'est dans le secteur où moi j'évolue. Oui. Tu as vu. Mm. Si tu prends dans le domaine de euh, l'agriculture, mm. mais il y, a, beaucoup d'emplois. Non, je ne peux pas te donner des chiffres exactement. Bon, à mon chiffre, mais ce qui, est, ce qui est important, mm-hmm. c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un chiffre de plus de 400 000 emplois. Oui, mais Lolo, tu sais, Alumara, il y a un qui a prouver. Ah, si yaa ngi répété li premier ministre di wax. non non ah, te yow loolu mënoo ko prouver. c'est pas une question de répétition dégg ma ne la. premier ministre moo ko wax ne. non y a des preuves y a des preuves. waaw sa lan. Hmm. premier ministre li mu la wax xam nga fan la ko jëlee ah boo demee direction générale du travail les chiffres sont là-bas. inspection boo demee à l'agence nationale des statistiques. les chiffres sont là mais yow mënuñ jox chiffre loolu. Eh, chiffres yooyu la c'est c'est ces chiffres là. léegi beneen bi beneen bi kii dafa laaj euh, Aïssa dafa est-ce que jigéen ñi dafa dañu am place boo xam ne da leen aménager ci mbir mi. bon jigéen ñi ça dépend des entreprises. Hmm. par exemple boo jëlee par exemple l'entreprise euh, chinoise ñoom dañ ne par exemple euh, entreprise de confection boobu boo xam ne ñoom lépp lu ñuy defar dañ koy exporter dara jaay ñu ko fii Sénégal ah. tout est exporté mooy ay genre ay Lacoste ak yooyu. parce que ñoom marché yi ñu am c' est le marché américain. Mm-hmm. et le le marché de l' union. kon ñoom du ñu concurrencé ñoom Baara first ils exportent ah, tout. parce que ils ont des marchés déjà établis. Ah. ah xam nga ñoom lan moo tax ñu ñëw fii Sénégal. parce que c' est à surtout euh, le coût de la main d' hmm. parce que tey voilà. parce que tey. li ngay fay un employé chinois parce que maintenant les les chinois sont un pays développé. Mhm. li ñu daan nangu comme salaire léegi dootuñu ko nangu. donc fi ngay fayee benn chinois boo ñëwee moitié bi wala euh, euh, tiers bi boo ko fayee benn sénégalais. mu nangu mu nangu léegi jigéen ñi jigéen ñi lan ngeen leen aménagé. jigéen ñi tey par exemple entreprise chinoise boobu ñoom jënd nañ couturières yi jël ils préfèrent prendre des femmes jeunes entre dix-huit et trente ans. ñoom ñoom ñoom. ñoom ñoom loolu mooy seen critère ñoom ñu ne ay est-ce que yéen par exemple am na euh, protection boo xam ne da ngeen koy jox nii ñi pour chinois yi bañ a exploiter su sunu ay kat waaw bay boo déggee ñuy wax zone économique nga la moo spéciale la dafa parce que entreprise yooyu dañ leen di accompagner ñun dañuy ñëw dans si bërëb boobu rôle lu APIX rôle lu foofu mooy ñëw indi toute l' administration sénégalaise bi nga xam te entreprise yi dañ koy soxla te daf si am benn boo xam dafa am solo. mooy y une inspection spéciale du travail à l'intérieur boo xam te yi travailleurs di am yëpp dañ koy xool xayma ko. léegi nekk ay contrat yoo xam te yu jaar yoon. Mhm. Aliou Mara exploité kenn. très bien Imaam dafa wax léegi euh, wax nga ni def nañ fa vingt cinq milliards te dëwanti dinañ fa def soixante milliards euh, kon euh, Imaam njëkk li loolu leer na mais léegi loolu ñun ay bor la yu ñu yenu waxal xaalis ba fu mu jógee. voilà léegi nag dama la bëgg expliquer benn affaire boo xam te c'est important il nga déglu nag dafa dafa am parce que parc industriel bu Diamniadio ñun zone économique spéciale yi ñi ko président tabaxe avant ñu koy teg dañoo teg ay loi yoo xam te dañ ko xayma loi yoo xam te ay experts sénégalais en matière d'industrie ñoo def li ñuy wax benchmark dem à des pays comme ay Chine ay Inde ay Pologne ah dëkk yooyu yëpp ñu xool naka la ñuy fonctionner seen ay zone économique spéciale naka lañ ko tabaxee naka lañ ko tëggee ñu bu ñu xoolee loolu yëpp ñu voté ñaari loi benn loi boo xam te c'est pour les organes de gouvernance des zone économiques spéciales boobu lañ ne APIX dans les zones économiques spéciales mooy administrateur des zones économiques spéciales dafa am solo ñu ne dañoo soxla ay promoteurs développeurs privés parce que zone économique spéciale ni ñu koy ni ñu koy tabaxee c'est sur un schéma de partenariat public privé le public c'est l'État qui donne le foncier dana ñëwal mais le privé peut être un tunkara qui dit écoutez man boo ma joxee cent hectares mën naa ko ñëw aménager ko defar fa ay tali defar fa ay hangar indi ay entreprise entreprise yi mën na nekk ay entreprise <coughs> étranger mën na nekk ay entreprise sénégalaise l'essentiel li si am solo mooy ñun li ñu soxla mooy mu nekk ay pôle de croissance ay pôle de compétitivité yoo xam ne dañu mën def ay transfert de technologie pour xale yi am compétence yi nga xam te yu yeneen dëkk yi am euh, màcc seen xam-xam màcc si si boobu yooyu yëpp ñu indi ko fi mu nekk nag ay euh, zone yoo xam te euh, privé yooyu ñoo koy aménagé defar yëpp indi entreprise yi defar lépp. kon ñun du ñu am léegi nag ñun. non privé yi mooy def yëpp yow mën nga ñëw defar lépp ñu doon lay jox foncier bi. jox la ko léegi 60 milliards yooyu 25 budget la noonu rek mais ñun. amuñ benn bor bu l' état foofu foofu état bi la moo def bor. amuñu bor ah kan kan la leb l'État à travers la Chine. moo ci jàppale. Chine moo ñu lebal. waaw Chine moo ñu lebal. moo ñu lebal 25 ak 60 moo ñu lebal. 25 plus muy 85. mais kooku. leen di fay. Tounkara euh, non non kooku c'est des prêts li ñuy ah. c'est des taux très faibles. taux yi ñaata la. Euh, bon ça négociation yi moi ça j'ai pas géré ça. Ah, mais en général mais en général mais en ne dépasse pas 2 pour cent. riba bi imaam nee na pour cent ça ne dépasse pas ça ne dépasse pas 2 pour hmm. mais li si am solo état bi daa bëgg joxe un exemple. ne man defar naa benn zone économique spéciale man maa nekk le promoteur développeur bi nga man maa koy defar aménager ko mais li ma doon gënal mooy promoteur développeur bi nekk un privé. tey c'est ce qu'on est en train de faire. boo demee boo demee Diass par exemple. on a pu avoir un promoteur développeur qui est boo xam te lui-même il a pris 50 hectares di ko développer di ko aménager. di indi ay entreprise entreprise yi actuellement boo gisee mu am benn entreprise rek c'est parce que dafa nekk en phase de développement d'aménagement léegi Aliou xam nga man lan moo ma dérangé ci affaire bi euh, man maa ngi ko bi ñuy tàmbali di jàng économie ci euh, dañu doon wax affaire zone économique spéciale yi mm-hmm. Euh, Sénégal amoon fi nouvelle politique industrielle mm-hmm. euh, amoon fi ay zone industrielle mm-hmm. ay SODIDA yooyu yëpp li ngay wax nii. moom moo ko taxoon jóg te yooyu yëpp dañ fayit ay sa du dëgg. c'est ça looloo tax ma bëggoon ko laaj sànq est-ce que tey jii mooy zone économique yi ñu taxawal ni est-ce que tey dina am suivi bi nga xamante ne war na ko am ba même du am même sort que Sodida ak yeneen entreprise yi. moo tax moo moo sànq ma ne la. Mhm. dañoo dañoo tënk ñaari ñaari loi ci zone économique spéciale yooyu xam nga modèle de gouvernance bi dafa solo. parce que loo jël rek gouvernance bi ci sam solo. alors ah, ñun dañu gra ñun dañu aay si théorie de. non aay si bind ay loi bind ay texte yu baax bi du bi du théorie. Eh? parce que NPI yooyu bi ñu leen fii def. loi yu xoolal texte yu yu yu mucc ay waaw mais échec. mais tout dépend si application euh, tout dépend si mise en œuvre. Sodida ngi nii fii Castor soriwul. Sodida mi ngi fii. <laughs> mu ne poussière ba dee. <laughs> Aliou gis nga. ay milliards dañ fa def tamit. Sodida xam nañ ko. mais nag cette fois si c'est avec le gouvernement du président Macky Sall. Hmm. avec une nouvelle vision. Hmm. nee naa la ñuy teg yëpp dañoo xool yenn réew yu développé naka la ñuy def ba egg fi ñu yegg ñu xool yooyu yëpp bu ñu ko xoolee ba pare avec des experts sénégalais avec des experts aussi de la diaspora ak aussi le concours des organismes euh, internationaux tels que l'ONU. Hmm. ñu jàppale ñu si. ñëw teg modèle de gouvernance est-ce que xam nga ni par exemple étude yi ñu def yëpp si euh, zone économique spéciale yëpp dafa wane ni que zone économique zone économique spéciale yi réew yi réew yu néew doole yi comme ñun mhm. amuñu si intérêt intérêt bi bàyyi ma yegale non non non non non non je suis pas d'accord nga doo d'accord ak man. parce que boo d'accord léegi président dàq la suba. non je suis pas d'accord avec toi. Alimara xam nga loo parce que boo mu waxee tout près Rwanda est là tout près. Éthiopie est là tout près. ils sont en train de développer des zones économiques spéciales. et c'est en train de réussir. seen zone économique spéciale yooyu moo leen loo de xam nga leen. moo voilà exemple bu baax nga joxe. pour euh, Rwanda ak Éthiopie xam nga leen réussir loo. waaw leen réussir loo mooy modèle bi leen bi ñu leen colonisé woon moom lañu jël foqati sànni teg benn mode seen modèle bopp. Mm. te ñun si modèle colonisation lañu doxal. waa léegi bàyyi ma yeggali ma doon wax c'est pas ça ah. c'est l'environnement des affaires. mais dañuy changer complètement modèle boo bëggee affaire bi réussir euh, ñu am. te seen modèle bokk na si seen réew set. dañu suñu réew setut bon léegi beneen bi mooy beneen problème la loolu lool mais mais euh, zone économique spéciale yi yow da nga ko wax critère yi ñuy teg mm-hmm. mooy il faut nga mën a indi cinq cent millions cinq cent millions mm-hmm. si réew yi ñuy def zone économique spéciale yëpp capitalistes yu mag yi tubaab yi am xaalis tubaab yu mag yi ñoom ñooy ñëw ak i mu affaire yi parce que waa réew yi amuñu ticket d'entrée ci mhm. zone économique spéciale yi. te xam nga wax nga fi léegi jox nga bàyyi ma yeggali joxe nga fi ñaari sénégalais. Mhm. ñooñu muy exception ci affaire bi. non du ñaari sénégalais ban exception. ne ñaar ñaar naa la sept entreprises yoo xam ne ñett mooy ci étranger. waaw euh, quatre yëpp mais non ah. non attention benn bi ay tubaab leen ngemb. non mais on est obligé parfois on on est obligé tubaab yi ngemb ñu d'accord nañu amuñu ci problème mais liñ la bëgg wax Aliou professeur oui tey si suba dama dégg Serigne Mbuub wax lu am solo par rapport ak. Serigne Mbuub ban si. Serigne Mbuub CCBM mm. dafa ne ce matin ne am na si investisseurs sénégalais yoo xam ne bu ñu àndul ak benn tubaab pour wax ne sama partenaire la dañuy am jafe-jafe pour que ñu mën leen yombalal mbir il l'a dit ce matin. Oui. te loolu problème la boo xam ne professeur foog ñu régler ko. mais euh, Nina que yow sénégalais pour yow ñu ñu mën a crédible sa sa projet mën a crédible li ngay wax ñu fulaal ko foog nga am benn tubaab boo àndal ne sama partenaire la pour. ñu bon parce que loolu mooy mooy complexe bi ñu jox bi ñu coloniser mais mais loolu loolu dafa grave mais beneen bi gën a grave. pour pour dans le même sillage que Nina. tey ñun dañu am ay capitaine d'industrie ay Serigne Mboup ay Mansour ay euh, euh, kan ngay limaat. MSN. Euh, mais ñooñu ñëpp kenn si ñoom si capitaine d' industrie yooyu intéressé wul si zone économique ah, spéciale. lu ah, tax ah si la zone économique spéciale bi nekk à Diass. Hmm. c' est un capitaine d' moo ko nekk di développé. non dama ni lu tax ñun tey par exemple waa waa yi dégguñu leen si waa CNP dégguñu leen si. waa MEDES dégguñu leen si. lu tax mm-hmm. non il sont peut yow déggoo leen si. non waaw si ah, si si il commence à s'intéresser. parce que il commence à s'intéresser ah, que. lu tax ñoom bokkuñu si vague bi nga xam ne mooy tàmmali affaire bi ñu gis ni que suñu waa réew tey ñoom ñoo yor mbir mi lu tax. mais waa réew bi ñoo ko yor déggoo ma ne la ay experts sénégalais. jëluñu ay experts euh, tubaab de ay experts sénégalais. non entreprise laa wax lu tax tey sunu ay. capitaine den ñoom Serigne Mboub lu tax waa CCBM demuñu foofu. ñëw dinañ ñëw. dinañ ñëw mais ñëw ñoom nañ ko gëm nañ ko ñu ngi ñëw. gaa yi ngi ñëw euh, ko baax ngi ñëw de. waaw mais dañ leen gëm nañ ko mais ñëw loolu mooy am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne gëm naa julli mais du julli. am na ñoo xam ne noonu la ñuy su benn affaire démarré dañuy bëgg xool ba pare. non les sénégalais. voilà ndax affaire baa ngi dox ah. bu affaire bi doxee. Ah, ñu doog a ñëw. mais ñoom du ñu jiitu. aywa Alimara tey li nga bëgg mu leer naa ñu message bi nga bëgg euh, vraiment jottali ko ñëpp. Mhm. si affaire zone économique spéciale yi lan la. alors message bi ma bëgg a jottali si affaire zone économique spéciale yi mooy ne que euh, président Macky Sall dafa euh, sumb liggéey bu rëy Sénégal mooy industrialiser. le Sénégal. yow APR nga bokk. Euh, waaw man kay APR pur et dur. mais PDS nga bokkoon. <coughs> waaw man ak président Macky Sall ñoo nekkoon PDS. ok bi mu génnee PDS nga génn PDS. ñoo fa àndandoo ñëw ñëw ñëw APR. Hmm. waaw mais y' a un décalage. président moo njëkk a génn de Aliou moo ma njëkk génn. waaw moom yow yow yow Idrissa Seck nga àndaloon wala non musuma ànd ak Idrissa Seck musuma ànd ak dañ ko génne woon dañ ko génne woon président dañ ko génne woon dañ <laughs> Mara yow yaa génne sa bopp wala mën naa génne sa bopp waaw PDS <laughs> après de positionner le Sénégal mm. comme mm-hmm. de la sous-région de la sous-région c'est nit ñi nga xam ñu soxlaa benn télévision wala soxla benn produit. Mhm. dem ba ay Chine di ko fa jënd. ay euh, ñëw Sénégal. dafa am problème micro parce mhm. euh, dafa mel ni micro sa micro mhm. kenn dégg ko xaaral ñu ñëw. Euh, <coughs> ñu xool dañuy def benn xaarandi garaajo may ñu benn xaarandi en attendant ñu ñëw léegi jeexal ak Almara.